li nga wax ci Macky Sall zoom ko waaw waaw vas li wax ci Macky Sall ak ñun mm-hmm. euh, c'est pas la réalité ay contre-vérité la ma jox la ci benn exemple bi mujj rek bi mujj bi mujj Macky def na proposition yow nga seetaan waxuloo dara journaliste yi commenté wuñu ko ñeen ñëpp ngeen noppi mu ne dafay dindi l'alinéa 2 de l'article 87 de la constitution mu permettre ko à tout moment mu dissoudre assemblée nationale xanaa journaliste du citoyen seul le PDS par ma voix a dit non. Euh, président Doudou Wade ñëwaatal non non ñëwaatal ñëwaatal. waaw ah, ma ñëwaat ci lan. ci li nga wax léegi li président. ah moo dama bëgg parfois. dama ne article 87 de la constitution dafa wax ne assemblée nationale bi kenn mënu ko dissoudre te amul ñaari at. yëg nañ ko def nañ ci ay débat yu bëri. waaw mais après bi ngeen ci defee ba pare ci dialogue bi ñu accepté ne dañ ko war a dissoudre léegi dañuy permettre président à tout moment mu dissoudre ko est ci def ngeen ci ay débat yu bëri. si def nañ ci ay débat ni loolu loolu catastrophe la loolu mënta ne. mais catastrophe loolu laa la wax ba ñu demee bay retirer kii bi on de loolu man maa ko wax. man maa tax yéen ñëpp ngeen wax ko man maa def une sortie wax ne c'est la catastrophe Macky Sall fekk ko fi mu ngi Rwanda mu bouleversé parti am ay ñoom jóg am ñoo xam ne moo lay wane parti fu nekk am na ay nit yoo xam ne yi ay démocrate lañu ñoom ñoo wax ak moom ne ko li du daan wax dëkk la mu retiré ko ensuite am na ay moment yoo xam ni assemblée bi dafay am ci ay situation yoo xam ne yi mais bu ñu ko mënul régler te ñun ñu am ci xalaat dañuy joxe xalaat bi dal na ma mën donc xam nga opposition du lu nit wax rek ñu ne déedéet ñun dañuy xam lan mooy opposition xam nga nit ñun mënatuñu def lu gën a garaaw dugg ci gouvernement bu Diouf ba pare wax ne loo def nous sommes responsable sauf le FPR bi ñu waree génn ñu génn midi xaaruñu ci guddi. dem defi élection ñu gagné ñu waar ñu ñëw mais loolu mooy construire pays donc Macky Sall ànduñu ci dara pour dajewuñu ci dara sunu parti masul dajeeg parti amuñu benn rencontre de parti bu ñu am de manière officielle bu ñu dajee rek à internationale la comme bërka loolu nag am na barke yooyu daje nañu. la famille libérale waaw. Euh, daje nañu au si le NEOPAC c'est pratiquement les parlementaires d'Afrique d'Amérique d'Europe et des Caraïbes euh, association bu yàgg la Macky Sall est devenu le le patron de l'international de de du réseau libéral africain ce que Abdoulaye Wade est à l'international comme une référence internationale au niveau de l'international libéral Euh, moom nekk na au point de vue africain accepté na démb wax na ay wax yu bari ci Ablaye Wade mooy maître mooy nangam tout ça wax na ay naka la ñu mën a waxtaan tout ça c'est bien ñun bañu ñu loolu loolu mooy sunu credo ñun dañuy waxtaan di waxtaan ba waxtaan moo ñu indi fii waxtaan moo tax ñu gudd fan. parti yi nga xam ne ñàkk waxtaan moo tax ñu gàtt fan ñun bokkuñu ci ñun waxtaan moo tax ñu gudd fan waxtaan moo tax ñu am waxtaan moo tax ñu juddu. waxtaan moo tax ñu dem assemblée nationale moo tax moo tax ñu dugg gouvernement waxtaan moo tax ñu jël réew mi ci waxtaan ak jàmm lañ ko ñàkkee mais ci waxtaan lañ koy jëlee très bientôt le cinq février. donc ñun ànduñu ci ay Macky loolu ay waxu amu leen ci benn preuve waxu wax ngeen ko 150 fois ñoo ànd dañuy diil nangam nangam ñi nekkoon ak ñun ñëpp fekk nañu Macky Sall d'ailleurs Macky Sall dajale famille libérale am du jafe de. du jafe moom. xamul tax. ñëpp a ngeeg moom. waaw waaye ñu demoon am na ñu bëgg a dellu ñu ko tàmbalee dellu si waat ñu rek mais am nañ ci sañ-sañ mais bu ñu ko bëggee am nañ ci sañ ñun am nañu mat boo xam ne gii xam nañu li ñu bëgg ñoom xam nañu li ñu bëgg xam nga dafa am benn affaire boo day am te gisin benn am na ñoo xam ne li ñuy ragal mooy ñàkk élection xamuñu ragalu ñàkk. traumatisme post pouvoir waaw war na nekk. mais xam nga loolu daal loolu du ñu du ñu ñoo koy ragal fu mu toll nii. ah déedéet parce que. waaw ah. ah, ah, xam nga jeex na ñoom nag ñooy seet li ñuy def ndax dañ koy def pour gagner wala dañ koy def parce que dañuy ragal ñàkk daf leen jege ñun nag gagner moo ñu jege ñun. option de regard bi bokkul gisin bi bokkul ñun dañu toll fi nga xam ne bii ñun dañu war a am. ah déet mënu doon benn kay ah doyen traumatisme post pouvoir dina def loolu nit lu ne. donc li nga wax noonu. sama euh, donkaas gi gi wala njowaan gi dama cee nar a wàcc. loolu mun na def loolu nit lu ne moo tax li ngay tàmm di wax gunge nit ki ba mu jeexal ci jàmm ak salaam am na solo.